thank you jërë ngeen jëf mbokk auditeur u Afia ñu ñëwaat ak yéen seen euh, rubrique bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum migration ànd ci nag ak projet bii di Sine Marena ci ndimbalu OIM ñu lëkkaloo ci ak yi nga xam ne ñoo di kuréel gi ëmb rajo communautaire yi di URAC ak rajo Afia FM euh, tey jii nag ñu fas yéene dalal Mbagnick euh, Ngom di consultant local nekk facilitateur Sine Marena di fàttali rek ne projet bi li tax jóg bokk na ci fexe ba ñaax ndaw ñi jëm ci li nga xam ne moo di wàllum migration waaye it projet bi ci euh, atum 2008 li nga xam ne moo di organisation internationale pour les migrants nag si ndimbalam euh, moo taxawal projet bu ni mel li ko tax a jóg nag bokk na ci ñaax li nga xam ne moo di ndaw ñi gën ñu xam li nga xam ne moo di danger yi. Euh, dañuy dalal sunu gan di Mbagnick maa ngi lay nuyu. maa lay fay soxna Fatou. Mhm. Mbagnick tey bu ñuy dellusiwaat un peu si objectif au Cinéma naa lan ngañ ci mën a tënkal. waaw Cinéma Arena moom euh, benn projet la bu OIM euh, di dérouler boo xam ne coopération italienne ñoom ñoo ko financé. Mhm. principalement. Euh, donc benn projet bu OIM di déroulé financé par la coopération italienne mm. euh, Cinemarena li mu jublu mooy essayer euh, sensibiliser ndaw yi xamal leen jafe-jafe yi am ci yoonu tukki bu jaarul yoon maanaam mooy li ñuy ñoom li ñu tudd migration irrégulière mm. mooy ngay bëgg a dem bitim réew te yow euh, soit euh, amuloo passeport wala euh, amuloo daal kayit yu lëpp wala permettre nga mën a jaar ci yoon bu normal. Mm-hmm. yoon bu normal boo ko déggee mooy nga am sa visa jël avion wala yaa xam bateau l'essentiel boo yeggee nga mën a am papier yuy firnde ne yow mi am nga droit dugg ci territoire bii nga ne nga dugg. tey jii yow euh, journaliste nga di consultant local nekk facilitateur tey jii euh, ndax mën nga ñu wax euh, sa expérience bi nga xam ne en tant que journaliste dund nga ko ak li nga xam ne moo di opération yi nga def sur le terrain. waaw en tant que journaliste moom li ma njëkk a marqué ci Cinéma Arena mooy am na ñu bëri dañuy dugg ci maanaam migration irrégulière parce que dañoo xamul ñàkk a xam moo moo moo waral lu bëri cest dire que information bi circulé wul ci seen côté journaliste moom déjà yow li ñu lay jàngal mooy euh, collecte info traitement diffusion donc fexe ba information bi circuler malheureusement ñoom information circuler wul seen côté parce que ñu bëri dañuy dem jàpp nañ ne euh, nit ñaa ngi dem Europe di réussir ñoom war nañoo mën a dem réussir foofu te dem Europe. dafa am ay charte yu ko lal euh, balaa ngay dem d' abord mooy li ma njëkk a wax ci sama sama premier point bi mooy d' abord nga am ay papiers yu réglementaire yuy wane ne que yow am nga droit circuler ci dëkk boobu ba pare boo fay dem aussi demee fa ak benn bagage voilà soit yaa xam ndax euh, ci sa formation ci sa cursus am nga loo loo jàng loo mën. Euh, loo xam ne boo demee ëllëg ñoom dinañ ko soxla te yow di nga mën a euh, monnayer sa talent foofu di nga mën li nga jàng nga liggéey ci mu mu amal la njariñ donc voilà li ma marqué aussi euh, que mooy ñu bëri dañuy foog ne ñàkk ak métit amul Europe ñàkk ak métit am na Europe euh, ni ngay gisee fii ñu sonn bay yalwaan noonu la amee foofu ñu sonn bay yalwaan te loolu ci li ma koy firndeel rek mooy bi ñuy def campagne deux mille dix huit octobre dañu demoon côté Dingiraay bi nekk euh, biir Médina Yoro Foulah euh, la foofu la ñu rencontré woon le plus jeune maire du Sénégal certain Camara moom da doon expliquer ne moom def na Europe def na Italie yu bëri keroog bi ñu demee di def foofu suñu cinéma arena bi ñu paree ci débat yi dafa doon expliquer ne voilà il fallait que lii ñëw pour ngeen xam ne Europe tam dafa am ñuy yalwaan man dem naa fa gis naa ko mais xam naa ne su leen ko waxoon sax du ngeen ko gëm donc mais lii tey wane na ne jafe-jafe fu nekk la am ci àdduna bi. mu mel ni genre utopie la boo xam ne pendant des années dañ ko gëmloo jeunes yi pour nga réussir il nga dem à l'étranger et que peut-être xëy na li leen di tromper mooy ñu fay réussir dafa bëri mais ñu constaté ne quand même immigration bi dafa gën a am doole surtout même période Covid bi ñu yaakaaroon ne euh, dina taxaw affaire bi dafa géegi dayo dem Europe réussir bi moom léegi c'est vrai que nit ñi ñu bëri gëm nañ ko ba léegi gëm nañ ko parce que mooy li ma lay wax dañoo xamul ñu ci bëri dañoo ignorer complètement danger yi am ci affaire migration irrégulière donc moo tax ba léegi pour nga génne ci seen bopp ne boo demee Europe doo réussir dina xaw a jafe même si tendance bi actuellement mu ngi wane ne Euh, jeunes Europe yu bëri ñu ngi jógee Europe di ñëw côté Afrique di di liggéey si fii euh, am nañu ay ñoo xam ne ñu ngi nekk par exemple ci cinéma projet cinéma Aréna ci boppam euh, ñoom seen reconnaître nañ ne bëgg nañoo dellu fi ñu jógee mais gis nañ ne amul perspective yu bëri yu leen di xaar foofu donc ñoom dañuy préférer toog fii liggéey fii donc loolu euh, sensibilisation encore une fois moo mën a permettre nit ñi xam ne euh, li li nekkoon nekkatul que dem foofu rek da ngay réussir systématiquement. donc euh, loolu lu am solo la li ma bëggoon aussi wax mooy ñu bëri phénomène bi li ko gën a accentuer en fait dafa bëri ay kii sociale pesanteur sociale yoo xam ne ñoom ñooy tax par exemple ñu bëri. Euh, seen yaay yi dañuy jàpp ne seen doom dafa war a dem kut ko kut Europe pour mën a réussir benn exemple laa lay jox bi ñu demee Médina Yoro la euh, daaw euh, dafa am benn benn parent dañu diffuser film ba pare parce que dafa am benn film long métrage bu ñuy diffuser pour won nit ñi danger yi nekk ci yoon wi après film bi day am débat te te ñun bu ñu ñëwee programme bi dañ leen di expliquer nan la programme bi tëddee donc paa boobu xam naa ne li mu gis ci film bi da koo marqué ba nga xam ne bi film bi jeexee moom xaarul sax débat bi dafa tëb rek jóg taxaw commencé wax ne ne commencé di di di dal jigéen ñi ne leen gis ngeen li ngeen di def gis ngeen euh, problème yi ngeen di dugal seen doom yi te lii yëpp da ngeen koy def te seen seen seen jëkkër yi duñ ko yëkk te loolu en général liñ ko fi ñu ko gën a remarqué mooy mu ngi am ci famille polygame yi voilà bu amee kenn koo xam ne peut-être moom voilà doomam réussir na jaar na ci yoon bu normal wala sax jaar na ci yoon boo xam ne normalul mm-hmm. mais par chance na keneen ki beneen co-épouse bi day def tout pour doomam dem quitte à ce mu def ko ci dans le dos du père c'est-à-dire que papa sax du xam ne mu demee day toog rek dootu ko gisati. Mm-hmm. parce que en général gaañ bu ñuy dem dañuy nëbbatu ba yegg. Mm-hmm. doog a mun a woote ne yegg nañ affaire yooyu quoi. voilà donc c'est un problème très très complexe. Mm-hmm. boo xam ne euh, il faut que ñëpp jël conscience su danger yi pour ñu mun ko éradiquer. absolument mais mu mel ni quand même comme ni nga ko waxee ñu ci bëri seen yaay ñooy complice parce que ñooy teggi seen natt yi di ko jox seen doom yi euh, mais problème bi day rester entier parce que jeunes yi euh, jàpp nañ ne pour génne situation peut-être précarité bi nekk fii il faut nga dem Europe mais est-ce que am nañ conscience danger yi puisque ñun chaque jour ñu ngi gis ne nit ñaa ngi dee ci gaal yeeg yooyu mais teewul ñuy braver l'interdit di dem waa d' accord am na ñoo xam ne euh, mën naa wax ne am nañ conscience bi par exemple bi ñu nekkee bi ñu demee Goudiri dañu rencontré woon foofu benn gaynde je crois chauffeuru ambulance su kii bi la le le truc de santé là bu Goudiri. Mm. daf ne c' est vrai que bi ñu ko expliquer un peu suñu campagne bi daf ne waaw c' bien ngeen sensibiliser de mais dinaa leen wax leen fii moom jeunes yi mun ti mënti waxit ñoom li ñu jàpp ci seen bopp mooy dem rek. Mm. te saa yu amee si par exemple dix yu départ wala vingt. su amee benn wala ñaar bu ci yegg rek su wootee ba na yegg na rek ñoom fe genre fête lañ koy def quoi donc ñoom gëm nañ ne affaire bi voilà c'est c'est vrai am na am na ay danger mais am na ay sacrifice yu ñu yu ñu war a def donc ces gens là pour nga retenir leen il faut que ñu am ci lu ñu jàpp fii il faut que ñu am lu ñuy liggéeyee fii pour ñu mën a toog mais pour affaire danger am na wala ki affaire yi man ça ça m'a surpris le fait que état d'esprit bu ñu nekkee c'est-à-dire que quel que soit danger yi am am na ñoo xam ne xamuñu ko ça moom c'est c'est c'est je peux même dire que c'est 80 pour cent mais 20 à 15 pour cent yi ko ci xam sax ñoom jàpp nañ ne quel que soit les dangers ñoom dañuy tenter seen chance rek voilà lu ñu am rek jël parce que imagine toi kenn ku traversé ba pare ñeen ñi dee yow nga rëcc ci après yow nga woote ne man jàll na ñoom ñu fete ko voilà donc ils se disent que comme kenn jàll na rek y a y a encore de l'espoir je sais pas il y même une autorité qui est là peut-être que je pas mm-hmm. pour des raisons de de trucs je peux pas citer son nom mais il m'avait carrément dit que euh, quel soit gars yi li ñuy def nañu xam ne les jeunes vont partir tant qu'il n'y aura pas de projet de développement endogène, tant qu'il n'y aura pas des projets qui vont permettre aux gens de s'investir sur place, de pouvoir travailler sur place et, de pouvoir se réaliser. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça va être difficile pour nous retenir les Et en même temps, euh, il me disait aussi que l'Union euh, européenne ni ñuy def seen campagne yi dañoo war a ñoom si seen bopp commencer par conjuguer seen effort c'est-à-dire que fexe ba par exemple da ngay gis OIM mu ngi intervenir si sensibilisation GIZ benn c'est la coopération allemande ils sont dans les espagnols aussi sont dans ça au niveau de l'Union européenne comme ni ñu amee vision globale ci yenn projet yi noonu la ñu war a amee vision globale ci campagne bi que ñu ñu mën a centraliser effort yi di mën a ndoor ay campagne euh, essayer nañ ko def Kolda par exemple. si benn soirée bu ñu doon def foofu les gens au niveau de de OIM ils ont essayé de contacter tous les autres intervenants yoo xam ne ils parlent au nom de l'Union européenne pour ñu ñëw fekkee au moins soirée bi ñu defoon Kolda. c'était pour que voilà. tendance bi mi ngi mi ngi dégagé wu quoi. nit ñi xam nañu il faut qu'ils agissent ensemble. mais est-ce que jàppoo ne quand même c'est aux États africains ñoo war a régler problème les États africains euh, lan lañ mën a régler mooy mm, c'est vrai accompagner nit ñi sensibiliser leen mais surtout faire des projets qui vont permettre aux gens de rester loolu loolu loolu rek mooy mooy solution bi parce que par exemple yem actuellement seen approche bi ñuy def. bu amee migrants de retour xam nga ils ont une politique spéciale pour les migrants de retour. y a des gens yoo xam dañuy ñëw on leur demande de de de faire des des projets. Euh, après euh, le projet s'il les bancal c'est-à-dire que si le projet est peut réussir mm-hmm. ñoom ñu financer la en nature par exemple y a des gens leen wax ne ñu def projet kii am na benn jeune bu ñu rencontré woon euh, dans le département de Kolda là euh, il a il a demandé à ce qu'on investisse pour lui pour mu am moulin à mil voilà donc ce jeune là aujourd'hui il est il est il est dans son village il est en train de se refaire dans une autre localité aussi ci Médina Yoro Foulah bi Jamma su ma juumulee il un groupe de dix jeunes yoo xam ne c'est des migrants de retour les huit ont accepté de se retrouver pour faire un poulailler poulailler plus élevage à côté quoi voilà donc c'est c'est des initiatives comme ça qui peuvent permettre aux gens de rester c'est-à-dire que autant tubaab bi ñoom ñu ngi koy def parce que tubaab bi ñoom ils ont compris maintenant que les gens il faut pas seulement nga ne leen toog leen mais da ngay fexe def leen ci dara comme ça ñoom ñu mën si jàpp quoi bon état africain yi peut-être li ñu mën a def mooy investir dans des projets de développement au niveau des terroirs de départ pour que gars ñi bañ a jóge foofu sax parce que exode rural bi ñuy wax ni en général c'est exactement la conséquence de ça autant les gens quittent les les zones rurales pour ñëw en milieu urbain mm-hmm. autant les gens quittent le milieu urbain pour aller en Occident parce que ils se disent qu'ils n'ont pas de boulot sur place mm-hmm. absolument am na sax euh, benn phénomène boo xam ne quand mu ngi bëgg a bëri moo di jeunes yi nga xam ne bu ñu demee ci yenn dëkk yi euh, finalement dañ leen di constituer prisonnier ba seen mbokk yi pour ñu jot si c'est tout euh, si suñ soirée boobu am na benn DJ bu ñëwoon di def témoignage après sax chef projet bi ñu àndoon italien dafa ne ma woon jëlal contact ak jeune bi on va faire le reste de la tournée avec lui mm. parce que son témoignage est assez poignant euh, kooku dafa demoon euh, ba Libye après ñu ñu ñu mu xool mu gis un peu comment les gens fonctionnent ak seen camp yooyu ñuy ñuy rassembler xam nga gars yi par étape lañ lay yóbbu quoi buñ la da ngay ñu jëlale soit Mauritanie yóbbu la ba Niger après kii voilà par ainsi de suite léegi Libye nag c'est la dernière étape avant ngay traverser pour dem en en Europe. léegi kooku daf ñu doon expliquer ne moom li ko gënoon a marqué. ce qu'il a eu du mal à digérer en tout cas mooy lu fait que ay propres frères africains ñooy def loolu seen propre frère africain te moom li mu gis mooy koo xam ne Kolda la dëkk moom moo doon boole ak gars yi. ay doomu waa Kolda ñoo xam ne jàpp na na seen waajur war nañoo mën a yónnee xaalis pour ñu mën leen a kii donc moom quand il a vu il a parce que dafa am ñoo xam ne par exemple yow dalay leer ne xam nga ne euh, Ablaye Ndiaye bële seen waa kër am nañ ay nag bu ñu ko fexee mu woote jot foofu dinañ wax na nañ leen yónnee xaalis ñooñu ils vont se pour yónnee xaalis donc gars yi finalement euh, fonds de commerce lañ ko def ñi nga xam ne c'est des jeunes africains euh, ñoo xam ne ñoo waroon peut-être sensibiliser seen rakk bu leen dem ci lii parce que lii li ci gën a wóor mooy yaa 80 pour cent de chance nga ñàkk sa bakkan ñooñu ñoom ñoo def affaire bi fonds de commerce donc ñoom ñooy fexe booy bu ñu ñëwee ba pare ñu piéger leen ba pare nag voilà jox leen ay téléphone di leen wooloo seen i seen waa kër pour ñu yónnee leen xaalis donc finalement c'est c'est boo xam ne c'est c'est très complexe. daanaka waxtu yu daf nañu mais dañ lay bàyyi rek nga lancer message boo xam ne moom ngay adresser jeunes yi. en fait li ma bëggoon wax jeunes rek mooy c'est vrai que jafe na nga nekk ci kër euh, war a tekki te tekkiwuloo waaw loolu loolu jafe na c'est très très dur à vivre yombul quoi pour dund ko dem Europe aussi wala dem euh, États-Unis moo xam foo mënti dem ci àdduna bi dem ak dem bu leer moo wóor parce que nit euh, sa dignité amul prix sa dignité amul prix te boo nekkee ci dëkk jàmbur déjà ñu di la xoolee bëtu yow dëkkoo fi euh, loolu doy na humiliation quoi déjà rek dañ lay won tout tout temps ne yow fii dëkkaloo fi ba pare beneen affaire bi mooy euh, gaañ bu ñuy bañ aussi li ñuy wax travail au noir boo demee par exemple en France am na ñenn ñoo xam dañ leen di liggéeyloo amuñu fiche de paye en général en France la règle mooy même booy liggéeyloo nit réglementaire parce que moom lépp lu muy def comme dépense y a une traçabilité voilà gars yi dañ lay dañuy mën a xam li ñu li ñu pour ñu mën a justifier seen euh, activité bi que lii la ñu dépensé lii la ñu am lii mooy seen seen seeni seen i profit donc pour nga liggéey liggéey bu normal il faut nga am ay papiers yu normal bëgg a bëgg a tekki nag ba ne man a tout prix il faut ma dem man pour man loolu jaru ko parce que voilà des fois euh, je sais ndax jot ngeen na gis image yi gars yi di wane ci bateau yi bateau yi yi yi kii euh, en mer gars yi ñëw di leen jël seeg affaire mais mais mais c'est terrible c'est terrible c'est-à-dire que man dama naan lii lan moo ko jar ci àdduna quoi parce que bu fekkee ne da nga dem ba foofu amul dara luy luy justifier ne yow war nga def lii mënoo liggéey finalement dem bi ban njëriñ lay amana lay pour yow. di ko Euh, di fàttali ne consultant local nga nekk facilitateur Cinémarena ñu mm-hmm. dalaloon la tey jii ci suñu rubrique bi euh, ñu waxtaanee li nga xam ne moo di expérience bi nga dund en tant que journaliste mais également euh, sensibiliser un peu jeunes yi si ñuy def immigration régulière di ko jaajëfal bu baax di jaajëfal soxna Mame Coumba Diagne Touré ci wàllu xarali gi di leen dig daje ci beneen semaine incha allah